sëñ Cheikh xibaar yi ñu tàmbale ko ak campagne électorale bi candidat yi ñu ngi wëy di dem ci ay diwaan yu bëri ci réew mi ngir euh, wax askan wi seen programme. bokk na ci Khalifa Babacar Sall euh, mi nga xamee ni moom euh, nee daal li mu bëgg mooy. matal li ñuy wax autosuffisance alimentaire fii ci Sénégal suñu ko falee njiitum réew redynamiser tamit li ñuy wax culture maraîchère fële ca commune bu Tivaouane Peulh Niaga ñu teewlu ko ci micro Aminata Ba. mbay mi nga xam ni nag moo doon cëslaayu ñi fi nekk nërmeelu na léegi Sénégal bu njëkk da daan exporter produit maraîcher ñëpp xam nañ ko fii bay exporter fleur ak fraise su ngeen ko fàttalikul tey seen suuf sépp gaa yi nangu nañ ko def koy kër fii nga taxaw kay tool la woon en tout cas tool bu mag la woon tool bu rëy la woon lii mu soppeeku doon ciment ak suti loolu la dëkk bi yëpp nel te ñu ni nag ñun dañu bëgg développer suñu réew dañu bëgg bay dunde bay dundal bay jëriñu noo koy defee ak lii c'est cette contradiction que Khalifa Sall président de la République fas yéene faj fexe ba mbay nag doon fa mu war ne muy activité boo xam ni day dundal askan wi mais surtout askan wi da ciy dunde mais askan wi da ciy jëriñu xam nga li réew yëpp xewi léegi mooy bay rek jaay bay jaay moo xewi ñi fiy def haricot vert ñi fiy def tomate ñi fiy def bépp produit maraîcher du pour lekk ko la naam daañ ci lekk mais dañ ciy jaay mais dañ ci jëriñu dañ ci dund loolu moo fi tumuranke xalifa Sall président la République xalifa Sall président de la République dana fexe ba région du Cap Vert Cap Vertaat cap bi vert vert ci forêt vert ci mbay vert ci nap nit ñi sax vert Euh, bokk na ci coalition euh, bi nga xamee ni kii di Déthié moom moo ko jiitee ma nga doon amal caravane ca mbeddum Kaolack ya décliné fa euh, programme am bokk na ci port bu Kaolack bi mu ne bëgg na ko dragué ba ñëpp ñi nga xamee ni ñoo fay yóbbu marchandise surtout camionneurs yi mën fa def la soxla ci wàll woowu moom Déthié Fall ñu teewlu ko ci micro Ousmane dem de la République je sais que bi muy wut nguur gi promettre na dragué géej gi fii am fi port bu mag a mag buy recevoir yu mag mais je sais que mujj ko def may jël engagement également que bu ma yàlla joxee nguur dragage boobu dinaa ko def ba yenn produit mën a fii yenn produit mën a également jóge fii di dem ci yeneen port di dem portu Dakar ndaxte dragage boobu bu ame yenn bateau yi di wàcc fii dina tax camion yu bare dootul soxla ñu yegg Dakar li ñu soxla ci marchandise daal ko wàccee fii et bu boobaa économie dëkk bi gën a baax économie dëkk bi gën a jëm kanam. dama koy wax dama koy wax mooy mbir warul yam Dakar mbir dafa war laale bépp département bu nekk biir Sénégal. et maa ngi jël engagement ni bu may yàlla mayee ndam. département bu mu mën a ci biir Sénégal daa gis sa bopp ci koom réew mi daa gis sa bopp ci biir état bu investir loolu wax ko fii te xam ngeen ni sama wax bu ma mës wax respecté naa ko te bii aussi ak li ma wax ci programme bi nga xam ni cadre nas nañ ko ñu tuddee que le Sénégal bon à vivre et beau à voir lan ca wax yëpp yenn touché Kaolack xam leen ni bu boobaa aussi daan ko respecté beneen candidat muy Amadou Ba ci réeroo bi ñuy njortu ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag euh, dafa ajandi campagne euh, ñëw euh, wuyu si président de la République ci benn waxtaan. démb la ko def ca Tivaouane pleine campagne électorale mu ne daf ko suspendre ñëw wuy ci Ndakaaru ci wóolu bi nga xamee ne na njiitu réew mi moo ko wóolu surtout jamono ji ci terrain bi ñu bari nemmeeku ni ñu bari ci responsable APR yi gisuñu leen ci terrain bi ngir ñu jàppale ko ci. ci euh, campagne électorale bi bokk na ci euh, patron appaire bi di Macky Sall te moom dafa waxoon ni day ànd ak euh, candidat am dem campagne électorale waaye jamono ji gisaguñu lu ne mel meeting bi nga xamee ni nag démb lañ ko doon amal ca Ndar nee nañu dinañu ko amal tey ji su 20 heures jotee soxna naata. waxtaan ba tey ak suñu gan Omar Sow bokk ci directoire de campagne bu Amadou Ba ñu jàll ci mécanicien yi nekk ci booru aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom dañ leen faa jëlee. dañ leen fa jëlee euh, mu indil leen nag euh, mer bu metti euh, mer bu futu la ñu def ñoom nag nee nañu dinañu jaamaarloo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo def loolu ngir ñoo delloo leen seeni seen i àq ak yelleef Mamadou Fall ak Mardien teewoon nañu fa. mu noor fële ca aéroport bu Léopold Sédar Senghor ñoo xëy gis ñu dajji seen i place di leen fa jëlee ñoom nee nañu yëf yi bett leen loolu waaye daal duñ ko nangu benn yoon ndaxte fi la ñoom di ko suturloo tey recasement yi ñu leen di wax waxi kese la ndaxi mbaay dong la. recasement bi mu doon wax daara amu si lañ ñu woon jam ñaa ba ma fa demee ñun biñ ko jëndul duñ ko am. kon état premier période bi mu doon teg jam ñaa job ay lan la ay naxaate. Mhm. sa njaboot doo leen nax te bu fekkoon ne c'est en pleine euh, gouvernance lañ ko def ñun amuñ si lu ñuy regretter mais buñ naan nguur gi jeex na gouvernement amatu fi ñu ñëw def ko def ko kon kon dañ bëgg a yóbbaale li fi des. te duñ ko nangu tey nag duñ ko nangu ëllëg. ay ati at ñu ngi fii ñoom nee ñu sax ñi fi dëkk ñoom ñoo leen fii jiitu kon tey jii ñaaw na lool ñu yëkkati leen ngir ñoo xamante ni seeni doom fa bëgg foowee. dañuy laajte ban Sénégal lañ ne. ndax état bu bëggee taxaw ne booy kenn du génn kenn du mbëkk tey nga taxaw di toroxal lu mbooloo mu toll nii kon la ngay wax boo ne gëm nga ko man dina ma des dina ma jaaxal. lii xeex lii seen kër yaa ngi nii jàkkaarloog ñun biñ fay nekk xalaatuñ fi ne biñ fay nekk. kenn xalaatul dëkk côté bii kon ñoom buñ demee ba ne dëkk nañ dañuy xalaat espace boo xamante ne bii nii seen doom fa la ñuy fooyee kon yaakaar naa ne ñooñ xalaatuñ ne dinañ dee te lii nii tey bu fekkee ne am na itamit ñun duñ leen ba abadan daay man fii ba yoo man xëyam leen ba jaaxle lool ñu fa dajee nag di tàllal loxo mboolem ko ci mën dara ngir ñu bàyyi leen seen bërëb boobule nga xam te ni ci la ñuy daan soon doole dundali seen i njaboot wala sax nguur gi dugal loxoom bu baax a baax ci ñoom xool fan ngeen di teg fi gën voilà soxna Nathalie moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf sëñ Cheikh ci yaatalu xibaar yi ci kanam tuuti euh, dinañ ànd ak Adama Sadio analyste politique la fas yéene taxaw ci euh, candidat bi di Bassirou euh, Diomaye Diomaye Faye ak particularité bi candidat.